3S Pro. ren dinaa la nag làmbaloog ah. te dama laa rendi booy bi nee na dama rendi tey bisu ndey mbàkke ki la ñaata ak saam ñaata bisu Ndeye Mbacke ko ki naan benn ñaata ak saam ñaata bokkul. Mbacke yow sax ba suuf armal lañ ci génne. ak naa waa dama sama bës tëyër ba la jógee direct ñëw. wa ah. loolu waay waay yi waxal leen ma man kii waay dàq seen kaalu génne kaalu bu ma yërëm waay. dina la dàq seen barke yorante bi gën laa jant waay waay. ay waay kaalu ah, yaa wax nga dëgg. ah sa bos bi. kaalu man fo sa bos bi mu feere si jaar yow ñawal sa bos mi ne feere fi jaar fee man damaa dugg ak murit génn mel ni yilimaani supame Bara Mbaye sa Dagana moo ñu ki ko mën a ki koy jéem bokkul le meilleur de sa génération eh, ñaar avertissement mi ngi noonu jox na ko ñaar avertissement Cheikh ñu bàyyi la nga doxal xeer bu ngor face à Jackson Senior ñoom ñaar ñu ngi sa géew ñu ngi demee wet yóbbu nag ardu ñëwaat dem na ardu daal di ñëwaat Cheikh Bass borom Kër Massar mi la ma jaaxal kos bi dañ ko ruus muy Eh, xeeru ngor oh tuusi na ko nag dal na de oh oh Jackson mi tey ñëwul de xeeru ngor mi soxor na de ah Jackson tey ñëwul de non Jackson te xame ma ko te de te xame ma de Jackson tey ñëwul de ndeysaan mais am na trois avertissement ñaar avertissement moo ko si géew bi nga jeexal combat bi non Jackson de nga dëgg làmb nii la te xame ma de par des fois da ñëw doo bokk. ah tere dana waar. day génnaat jël na ko. jël na ko da koy duma day génn quatre avertissement. côté am na quatre avertissement benn moo ko dese. làmb jeex na. benn moo ko dese làmb ji jeex. ah dana waar de mais xeer ngor xeer ngor xeer ngor tamit oh. gàccey door gàccey daan ba du faj. Ah, Jason Jason na taxaw bëre. gàccey door gàccey daan na ko faj waaye Jackson mi gis nii. mais Jason na taxaw bëre. taxawul pour bëre de. Ah, ndax day génnaat. na taxaw bëre lu ma am baax na. lii la war bëreeg moom. voilà daa war bëreeg moom latéral. voilà door na ko gis nga Kaaw. Oh. attention Kaaw. mais door métti na de. métti na loolu Cheikh. oh Jackson Jackson waaye. damay wet. jël na ko jël waaw waaw. day génn génn na waaw. waaw génn na ko. Eh, xanaa yëngatu nañu. non ñëw na si làmb ñu. non mi waaw waaw waaw. jàppante avantage Jackson la moo tax xeeru ngor du ko nangu. jàppante ah jàppante ah avantage Jackson. Jackson lii la war bëree làmb la. Uh-huh. Jackson lii la war a bëree Cheikh. lii la war a bëree. lii la war a bëree moom taxaw si géew bi. mu taw di ko mu damag li moom latéral. merci. cokkaas ke daw jël ko. Uh-huh. li may lamb teg moom bëreeg moom bi. xeer ngoor gis nga taxaw xeer ngoor taxaw na. day ñoom ñaar xam ne booy am na doole. am na booy am na doole. te boo ko jàppee lii mooy combat bu ko jàppee lamb ji na jeex. noonu la que Jackson daa mën a bëree. Jackson daan la. mais na def attention ki muy bëreel bagaar bi. Jackson jeexal na ay moromam. Ah, moo daan moo daan yankaaw. moo daan yankaaw. moo daan. Jackson xeeru ngor xeex. Jackson xeeru ngor. na ma yëg ñoom ñaar plaqué mën na am. plaqué mën na baaxul c' est que xeeru ngor njool la quoi. wax nga dëgg Cheikh. xeeru ngor njool la. xeeru ngor njool la jàpp na ko. Ah, Jackson mi ngi wut mu jàpp. Jackson jàppul. rocc loxo ba. bu ko roccee da gaañ. da gaañ de. bëgg na ko génne moom sax da ko bëgg génne bañ na. waaw bañal bañal day bañ. day bañ kay. bu génnee Jackson xeeru ngor Jackson jàpp na. bu génnee daa am cinq avril. Jackson lii la bëggoon xeeru nga génne sa loxo wóorul. Uh-huh. am na li mu am na ko. li am na jàpp na. jàpp mooy fooram mu jàpp mooy foor moom Jackson jàpp mooy fooram ndax bërekat la bërekat la la diggante ma ki nga xamante ni mooy Lat Dior uh-huh, ak di lamba ju métti woon dé demee yankaaw xeex ba bëre woon na waaye à la fin moom moo daanoon moom moom moom Jackson moo daanoon Lat Dior ñoom ñaar jàppante nañu Lat Dior poids lourd la géwalam yaa ngi yëngal uh-huh, Jackson xeeru ngor Jackson teena Jackson xeeru ngor ñoom ñaar ba léegi dara amagul ba bëtt am Cheikh. waaw waaw mën na si am de. ba weelu du am. Jackson bërëkat la de Serigne. daanaa nu bërëkat la mais xeeru ngor Jackson daanaa xeeru ngor fukki sel si bëre bi nga bàyyi xeex bi waaw luy xeeru ngor si bëre bi nga bàyyi xeex bi. ndax xale bi ngay oh, oh, a tàmbali. Oh, gis nga. plaqué na ko da lay génne génne na ko waaw génne na ko. génne na ko waaw génne na ko waaw. 4-2 nekk. waaw waaw daa am deuxième avertissement moom Xeeru Ngor. Euh, ñoom ñaar Xeeru Ngor day am deuxième avertissement. moom am quatre. deux waaw deux avertissement. Jackson am quatre avertissement. Xeeru Ngor am na deux Jackson am quatre avertissement c'est deux. Xeeru euh, Ngor bi day taxaw. day taxaw. Jackson kabar na ko ñetti yoon. ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett. kabru it boobay kabru it xel dem si xel dem sa turandoo ja dem si yàlla ja yàlla na ko waaye xel dem sa turandoo ja Jackson bu géej waaye mbooloo eh, diggante mag soq ndeysaan loolu Baba Diaw moo ko tëgg mbokk yi. loolu combat jënd la. maa la wax loolu Baba Diaw loolu mooy grand événement. jéeg boobu combat. Baba boobu combat. hey Baba Diaw. mais Serigne. waaw Cheikh. suba laamu ma am na fii. ay Pokola. ay Pokola Baldé. Eh, bul laal ay bul laal derby de la banlieue la boobu combat diggante Ama Baldé ak Siteu maa la wax loolu derby de la banlieue la kii Ama ma kii Ama ma ko indi wala nga ne ah. Ama daal di teg ne ah, maa la wax loolu suba suma xel dem na si li nga xamante ne nii mooy Siteu ak ki nga xamante ne nii mooy Ama Baldé amateur da nga waxtaanee. waaw waaw daa boole ki nga xam ne mooy 33 mafia yi. ndeysaan waaye dañuy nekk bul laal xale bi ga xamante ni moo boole jàmm ko si Kam Mbaaw Fass Mbaaw Samsam 1 2 3 Talimam Diarra Fass Guy Go ñëpp la daal boole. ba Kër ñoo ngi noonu. am na solo Babacar xeeru ngor dem la si kawam. jàppante dóor mu bañ dóor. xeeru ngor Jackson. mais Serigne. ay Cheikh. Jackson li ma moom. Mhm. moom combat yëpp a métti combat bu bëree. combat bu bëree day métti. combat bu bëree combat ko door ko bañ na xeex mu bañ. door na ko dal ko door. oh oh jeex na lamb jeex na. lamb jeex na Serigne Euh, non du jeex. ah du jeex du jeex. ah du jeex. ah du jeex de ah, ah du jeex. ah du jeex. ah du jeex de ah. waaw waaw ni la woon ñu bëre. waaw non non non non waaye non non waaye. waaye non non non non waaye. 3S4.